liste des candidats à l'élection présidentielle de 2024 Guénin, mais malheureusement doucement sont son de ce teewe mais cependant numéro deux parti et passif nous représenté le le du du Bassirou bassier du Bassirou n'a jamais été un moyen mooy Ou alors loolu empêché ou le yoon ni di passif Il désigne désigne comme plan B Lors indi controverse courrie tax na suñu seet journaliste yi génn ne Bassirou Diomaye Faye mënul nekk candidat parce que jamono ji saatre yi nga koy toppee may ko mu doon candidat son lay gu nekk dégg nañ ko de Yérim Seck à passer par Fou Malade Aliou Sow bëri na bëri na journaliste yi génn di wax seen xalaat si biir wi loolu teelewul dëgg jox nañ ko kii di Bassirou Diomaye fay neen dem seeti vaar bi nañ commencé si kii di Cheikh Yérim Seck li yóbbu Sonko du fi bàyyi Bassirou Diomaye ci gàttal képp ku bokk ci Pastef ñu disulur ko gëw ma ni da nga mën nekk candidat waa passé faaw ñu dimbali leen ñu gagné temps ñoom sax seen stratégie loolu la xam nga bu ñu jëlee ba Bassirou Diomaye kan Faye yóbbu ko directement mu def parrainage citoyen ñu garder seen parrainage par des élus mooy ñoom xam nañu fi est ce que dégg parce que dafa am beneen cartouche bu ñu denc te wax ba nit di dinaa ko procureur dafa du ñeneen du ñu wuti parrainage ouais Joma est en prison. Il fait partie du bureau exécutif de Pasteur. Et un membre d'un bureau exécutif d'un parti dissous ne peut pas aller aux élections. ah ah ah. peut-être pour des raisons de nécessité impérieuse. Lui loolu. man lui, chef d'inculpation Il ko dañ ko euh, condamnation. d'accord non sama man cardiaque damay dee ay waay aw ma cardiaque waay moom duñu dem le plan B peut-être la plan Z kay parce que même B bi baaxul B bi ah, baaxul bi baaxul bi Bassirou Diomaye baaxul ci Ousmane Sonko doon def Bassirou ah, Diomaye baaxul ah, c'est-à-dire expliquer loolu ba Bassirou mënut a dem ah expliquer parce que parti bi nga xamante ne moo ko bëgg a investir dañ ko dissoudre ay ah mais parti bu ñu dissoudre ah. nan nan la ñuy jëlee parti dissoudre ko ak motif yi nga xam ne moom la ñu évoqué pour motiver dissolution boobu <laughs> parti boobu di investir nit ah, ñu ne eh, non ci texte laa ko teg parti bu ñu dissoudre képp ku ci bokk tukkee ci parti ah. boobu ba un an munoo participer ci élection loolu ci kii la nekk kii bi la nekk ci

déet Bassirou Diomaye Faye mi waa Pastef jiital ñëpp di ko estati ne moom mooy nekk candidat Pastef te day gagné yow nga ne bokk ci yi. mais dun foo nga tegal ma vaar bi ma ne. su Ousmane Sonko bokkee tuddee leen ma xaj Bassirou Diomaye Faye. waaw su bokkee. waaw lan xaj yow seen kër ngeen tuddee gën a dee. fen fen bu yëngal aras explosé aras ba léegi aras gaa yi nga koy dajale malaaka yaa ngay dajale aras di ko dajalewaat malaaka yaa ngay dajalewaat aras ku ne di parti ñu naan la la ñu ne duul kat ba duula tina de ah li moom doy na waar mois de janvier bi ñu am vaal bu mel nii <laughs>